salaamaaleykum suñu mbokki internetu euh, Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois rek euh, naam tey ah, dañoo déplacé wu seet si ndaanaan bu mag yaakaar naa ni euh, sénégalais yëpp xam nañ ko moom mooy ndiis bu njool bi nekk ndiku borom mbaxalu mbaari bi tey moom lañ ñëw fas yéene waxtaan ak moom duñ sori ci wax ci dañ koy jox mu yokk mbokk internet Feeling Dakar TV ñu seetaan après ñu dikk moom ci waxtaan bi ndiku maa ngi leen di di waaw asalaamaaleykum maa ngi lay sant di la delloo ziar yéen waa Feeling Dakar. baa njëkkati micro bi. yéen a. njëkkatil micro bi. <laughs> waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di sant yéen waa Feeling Dakar yéen ñi ma seet tey di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. Mhm. Euh, di nuyu waa Géejawaay di yëpp nuyoo sama fans di nuyu ñi may bége. di nuyu waa ASECNA bi may yeewoo. Mhm. di nuyu sama yaay di nuyu suñu waa kër di sant maam Thierno borom daaru mhm. baabu laa baabu jannati point moom rek laay topp. <laughs> bu ko defee di nuyu Dabakala waaw di nuyu Pape Seba di nuyu ummi ummi léegi bàyyi façon moom day jàpp ci man di leen nuyu di leen sant. Mhm. waaw di nuyu waa Géejawaay yëpp di dellu di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. d'accord mi ngi noonu yaakaar naa ne xàmmee ngeen ko kii mooy ndiku yaakaar naa ne tey sax daf ma xaw a jaaxal man ndiku bu ma xamoon daan toj mbaareeg yooyu noonu nuyoo beeg yu demee noonu ndax tey mayoo ma ko non dama koy toj ba tey à tout moment bu ma neexee eh. mu ne bërët bu ma nee bërët rek damay mbaraju toj <laughs> émission bi jeexagul rien n'est possible lu nekk mun naa ne eh, d'accord mi ngi noonu yaakaar naa ne xàmmee ngeen ko kooku mooy ndiku duñ def lu dugg ci waxtaan bi mm. mais lu waral waxtaan bi mooy jamono ji mën naa ni ah, bës bi yaa moom téye moom vraiment. Mhm. Ah, gis nañ aussi tamit nga def concours togg nga bokk ak ay ñoom Adjumas bokk ay ñoom Mami Cobra Mame Ndiaye Savon ba ci Tikalaw beeg yu demee noonu. naam ngeen concours nga jël troisième bi nañ ci dikk. bala boobu lan nga ñu ne ngeen dundee woon foofu ak ni ngeen nekkee woon foofu noonu ci concours bi. waaw ni ñu nekkee foofu wax dëgg fa yàlla neex na. Mhm. trop sympa ñoom ñëpp kenn amul problème wax dëgg fa yàlla ku ci nekk kaf foo ree waaw Mame Ndiaye moom maa ngi moom dañuy déggante téléphone presque moom laa ci gën a miimanteen mhm. moom damay gën a sawar a wax ci moom moom laa ci gën a miimanteel mhm. dañuy déggante téléphone bañ na ko ba naan ma ndiku loo problème moo am wax ma ko mhm. sama numéro ngi nii jël ko moom moom miimante nañ mhm. waaw aji maas mooy loolu Pendo Mami Cobra tamit dama abonné ci page am Pendo tamit ay ami lañ ticket tamit xam naa ko avant TikTok ba muy fecc tamit laa ko xam waaw ko ñooñu mun naa ni euh, am li ngeen bokk ak. yu demee noonu mhm. euh, ñu gis la nga choisir di togg mbaxal lan moo waral nga togg mbaxal. waaw mbaxalu mbaar parce que man mbaxalu mbaar yi sax nekku doon sama objectif wax dëgg fa yàlla man mhm. dama demoon Gambie ñibbisi bi ma ñibbisee yeewu dem ci lay lawbe. Mhm. Gunaas maa ngi koy nuyu au passage dem di tent sama bopp ñu woo ma. Sali ma ne ma allo Ndiku ma ne ko waa mu ne ma dañ lay indi sa dépense. sa kër yaay mhm. sa kër famille ma ne ko ok ma jox ko rendez-vous muy ñëw ma ne man de naruma woon bokk sax comme affaire bi dafa jàmp te maa ngi jóge voyage mhm. ma xalaat ba ci yàgg ma ne téemaa jël rek ndax boo jëlu tem-tem ñu ne mënuma togg mhm. wala dama daw wala ci tiktok bi laay toog rek di mbaraju di wax <laughs> ma ne garaaw naa ko jël ñu ñëw sama kër yaay indil ma sama dépense bi ñu ma ko indilee man tamit ma ne man fan laa war a innové génn ndax tem-tem mooy loolu ñu ne mbaxal la mun te mbaxal yomb na wala ceebu yàpp Mhm. ma ne ok kon naa def pay laa ma ndugg jël li ma am ak li ma ñàkk doole débrouiller mhm. ba ci naan suba la compétition bi ci la ma kati woowee kati ne ma yow looy togg ma ne ko pay laa laay togg kati doomu bise waaw mu daal ne ma non xale yi nee nañ mbaxalu mbaari lañ bëgg ndax comme ni nga koy waxee saa ne ci tiktok bi naan ay mbaxalu mbaareek ay mbaxalu béton xale yi loolu lañu wax ñu xool yow fooy innové ak noo koy génnee ba mhm. wane mbaari bi wane beton bi looloo indi ma ne kon ok baax na ci guddi gi ma def samay débat den ba changé sama kii waa def mm. sama affaire ah, d'accord ah. Ah, mais sa sa mbaxal mi euh, ndiku jaaxale na ñu quoi mbaxal mi waaw euh, bi nga ko taajee lan nga def ci kaw loolu nit ñi ñu ngi ci yee di yàbb di ko wax de waaw mbaxal mi bi ma ko taajee dama ne pourquoi pas lan laa ko war a décorer mm. parce que mënuma jël tey mbaari ay xottu biteel toj ko di ko teg ci kaw mbaxal loolu bu boobaa day xool day xotti put. mais mais mais di ko yaa toog naan mbaxalu mbaar yi. waaw waaw comme que loolu loolu la doon xaar. léegi noo ma déglu loolu lañ doon xaar ci man. Hmm. mais xam nga décoration moo ëpp solo pour jël loo xam ni nature dara la. Hmm. ba mu xaw a moom couleur bi. Hmm. xamal li ma la bi ne lii moo représenté li ci laa jëlee <laughs> olive. waaw ci laa jëlee condition. ak olive couleur bi lan la. couleur bi lan la vert verte la waaw. ok mhm. biteel mbaar yi biteel. waaw verte comme ni ma ko waxee lan la vert waaw ma ne leen mbaar yaa ngi ne beton lan la day weex. Mhm. ma jël olive blanc yi berka à côté bu doon dama ko mélanger ci biir nga ne peut-être. li mhm. ma ne leen décoration boo koy def ku nekk. solon son gu selon noo nga koy joxee moo tax ma ber bu nekk à côté ku bëgg bu dee na olive sentir nga lekk olive nga lekk olive bu dee sentir condition yi nga mhm. lekk ko moo tax ma ber ko à côté mhm. waaw loolu moo remplacé jël samay oignon ma coupé ko en julette. man kay mbaxal moom maa ngi doo gis mbaxal mu décoré. waaw jël samay oignon coupé ko en julette. dagg mhm. yooyu lañ naan en julette en restauration. mariné ko pour ku bëgg. boobu day dagg ay sol wala nga soj si fii am poussière mu ñoral lépp wàcce ko ñoom xamuñu fu ma fëllee ñoom ñoo xamut mais man xam naa mais mais ñoom bu ñu ñamee mbaxal mi ñoom ñoom naka ko gisee comme ni nga ne mbaxal boobu moom maa koy doo gis mi ñëpp a ko coow parce que mbaxal ma desu fa am na ñoo xam ni seen i cin cin yañ leen joxoon ñu togg seeni i ceeb yëpp fa lañ ko bàyyi mm-hmm. xam nga foofu moom belleet jege na pour ñu dem yóbbul ko ñamu mbaam yi <laughs> mënu dañ ko dem jox mbaam ya pàkk mbaam ya waaw mais man sama mbaxal daa jeex tàq gars yi yëpp ko job quoi. gars ci nawet lañ yëg te yi dañoo tooy. Hmm. monteur yeeg caméraman yi nee naa leen da ngeen yanu caméra ba seen bagg yi pant ñëw leen ngeen faju ñëpp naan ana mbaxal mi. d'accord hmm. yaakaar naa loolu am na solo mais ndiku man li ma dégg. Hmm. ci ñi nga xamante ni eh, yi nga bokkaloon concours bi. ku ci mel ni eh, Tikelawbe. ku ci mel ni Ajimaas. nee nañ yow dañ laa ragal. non nga ko gisee du question da ragal. waaw leen da ngay ñëw wax rek. man nii xaañu bàyyi kii. wax dëgg fa yàlla Tiken man li ma ne duma yàqu togg jàmbur. Mhm. Tiken bu waxee xam naa ne day mbalak moom. Mhm. maa moom suñu waañ yi sax xaaj nañ bay sore ndax Pendo moo nekk suñu diggante te moom ñëw sama waañ. Mhm. Adima sama dëkkandoo la suñu waañee tese. ñoo takkaloo. man ba may togg sama togg laa concentré kon xam nga kuy dem ba ci waañu jàmbur di lijjanti la mu togg mhm. ak la mu def kon yow yaa ngi bàyyi sa cin sa bëgg ñoo xool ni ngay toggee mbaxal mbaari bi parce que cin waroo sori sa cin moom Adjimass li ma ko waxoon rek ca ba ñuy joxee résultat yi man ne ko yow Adjimass da nga soxor gorewoo mhm. temps ba nga ñëwee xamoo sa place nga wis indi sa butéel évian yu ndaw yi ah, wis sa saafara daa ay mystique foofu la indi wis bu mu wisee ba pare far am ku ñëw nu wax placé ñu ne ku nekk fii woy sa bos moom maa ko jàppale ay bagage am mu déplacé man ak ñi ma àndal kon moom fu mu sotti saafara ba waaw dama déglu mu pare ne ma raq jàmbur comme wis naa ba pare demal nga to demal nga jël ko ndax nga gagné ma ne ko non man placé guñ ma damay toog xaar bañ placé ma mhm. toog bañ ne yow yaa moom fee ma dem toog déplacé samay bagage mhm. egg nettoyé sama moom ajimaas mhm. gan sax indiw ko ah bon sax indiwu ko maa ko may gant man du ma yàq kenn. d'accord. kon man ah. su ma la déggee. moom ticket moom mi wax. ticket lawbe moom maa ko al palaat bu mu yàqee nooy toggi say compétition indiwoo palaat boo présenté. yaa ko al palaat maa ko al palaat. mais ni ko ticket lawbe maa ko al palaat. bu mu yàqee. waaw maam Ndiaye maa ko al bool bu mu yàqee te maam Ndiaye sama nit la. xam nga ñoom ñëpp kenn waxut maam Ndiaye waxut ci man dara mami Cobra waxut mais ticket aj maas. Hmm. mais mais nit bu soxor loo jël da ngay nangu. d'accord comme yaa ngi lenn pendu gise kese moo génnut waañam toog ci bruit bi bokkuti fecc mon moom du ma fen. Hmm. elle a mérité première bi mu jël mérité na ko wax dëgg fa yàlla. ànd nga ci quoi ànd naa ci. d'accord j'accepte ànd na ci. voilà. d'accord mais nit du jël. trophée nga koy yàqal. Mhm. li ñu naan wax sa baaxu moroom xam nga wàññiwul dara sa baax. Mhm. Euh, moom neen dañuy bañ neen dañuy bañ ci kalaaw bi ñu ko déggee. Mhm. nga tojal biisu ngoone mbaari wala nga wala nga génneel ko jam yu demee noonu. ci man ñoom li ñu doon dégganteeg biisu ngoone man déggante moo ko man ci jour bi laa xam ni tamit. dañuy def any time xaw ko. bisu ne ma contacté naa la ba sonn man maa ngi woon Gambie déggoo li ma wax dama ne cëpp Gambie ñu indil ma sama dépense. Mhm. laajal Sali Babel. Mhm. man dama ne cëpp jóge Gambie yeewu. Mhm. ñu indil ma dépense. man ndegete man boobu ñoom nee nañ ma jëm nañ ma contacté ba pare pour wax ma ne ma mbaxalu mbaari laa am droit togg man maa ngi woon Gambie. ci jour bi tamit foofu bañ yàqee añ ba pare ñoom ñëpp sol nañ man ci jour bi foofu laa xam ne dañuy anytime. benn styliste maa ngi koy nuyu au passage élégance couture. nekk euh, Ngor rond-point Ngor. Mhm. moom moo dem ba bitigam jëli ji cuub woo livreur am barke borom daaru mu solal ma sur le jour kon nga xam ni man xaw ma ci woon dara. d'accord voilà mhm. ba may ñëw tamit ba foofu laa dem ba xam ni ku nekk may nañ la droit. yokk nañ nga ànd ak quinze mhm. mais man cinq personnes laa indi sama standing ñëpp a ngi ko gis ñëpp a ngi gis cinq personnes laa àndal dénk sama bopp maam Thierno Birahim ndaamal daaru mhm. ak sama yaay ji ma sukk jur ne yàlla baax na sama waañ boo xoolee samay moroom kese fa nekk mhm. ma neexoon ma indi magu dem mu toog sama wet voilà d'accord ah, yaakaar naa loolu am na solo nga jël paie Euh, kii jël pe ni koy waxatee di sax euh, Pendo. Mamy Cobra bi nga jël 3. Euh, ñu bari yaakaar que ni comme ni la koy expliqué rek da nga maam nit ñi dañ la ragal wala looloo tax nga jël troisième ak yu demee noonu lan ngay tontu ñooñu parce que nee nañ bi nga ñëwee da ngaa napp gars yi. non du question da ragal. waaw ñoom bisu da leen ko wax ci biir ventilo yi dugal nañ ci xaw ma caméra naan ñu doon jàmb seen loxo yeeg togg yeeg di màcc di cap. ay di ñandaw di xaarandiku ñu ñëpp ñoo ngi leen doon gis. loolu amoon na ci biir compétition bi. ah loolu lépp ñoo ngi leen doon gis caméra ñoo fa nekk. Mm-hmm. yaa ngay déglu mhm. man nee naa la li may wax bëriwut nekkul ne xam nga ñoom parfois dañ naan ñee dañ ma ragal kon xanaa man ñoom dama leen a ragal ñoom mhm. man ku wax ne ma loo wax ci ñoom ñoo ngi génn di la critiquer may leen wax dëgg fa yàlla mhm. kon ñoom loolu yàlla rek dem fa misaal ne ñoom waruñoo ñoo mën a gañe parce que yaa ngi bàyyi sa cin di dem xool nit ki li muy def te cin waroo ko sori man wax dëgg fa yàlla dew ma waañu kenn di yërndu di xool la mu def wala la mu jambee non dama concentré wu sama togg xam ni cin waroo ko sori ba ñi nga nekk sax sa waañ yow da war a méfier wu parce que nit mën nga def lii mu ne guuwu ndiku bi neexu ma man xaarama dolli lii ku nekk à say goût ku nekk am nga say goût xam mhm. goût bopp mhm. voilà mhm. Euh, d'accord nga nga bokkoo ak say nawle li nga xamante moom mooy concours bi nga jël troisième loolu lan lay def ci yow waaw man bettu ma ne waroon naa xam mun a jël parce que dama gëm sam bopp Mhm. mais boo nee cuisine rek ñu ne cuisine française la def lii wëg lii togg dañ la koy jàngalee ci kër ga mhm. li may wax rek ne suñu yaay teg nañu fu ñu war a teg jàngal nañu lu ñu war a jàngal amaana ñun ñoo juddu rek te suñu tëwu bopp mhm. mais dañuy togg dañuy yàq man sama waa sama kër a ngi nii boo duggee ñu bëri dañ naan day sol comme jëmp nii comme góor mais sama waañ a ngi nii ndab bool gën kuur yëpp damay togg ah damay togg nekkuma xale yu jigéenu célibataire yooyu nga xam ne dañuy toog alors livreur alors cak-cak non mm-hmm. Mm-hmm. lekk ci barget mm-hmm. samay waay a ngi nii naaxu bool togg dama ko bëgg man bu ma amee gan damay toggal sam bopp di yàq jigéen laa mais nit ki waroo am gan di dem copp restaurant yi wala topp livreur yeeg cag-cag yi benn bargetu ceeb suulu sa gan yaakaar naa loolu am na solo bu baax te bokk loolu dafa bokk ci teraangay jigéen bi nga xamante ni gan bu la seetee yu demee mais à chaque fois dañuy gis booy wax nga yaay sa diggante ak sa yaay lan la. waaw parce que sama yaay daa fort ci man. sama yaay moo ma fayal jàng. Mhm. sama yaay moo ma defal lépp. Mhm. sama yaay lépp daal presque sama yaay moom la. Mhm. moo tax sama yaay dama koy gërëm xam nga nga dem ba toog ba xam li sa yaay daan def ci yow. parfois sax nga ñëw doo xiif. mun forcé la añ bi nga xam ma ne ko yaay lii da cee def saafara pour dig ma bëgg ma toog. mu ne ma bañu la. bu ma la bañoon lii duma la mësa rey parfois ngay sangu si yoo ndox mi mu jékki-jékki def ci dara nga ñëw seen luy ñuul mhm. nga xëpp ndox bi nga gis ko muy jooy bu ko defee naan la garab bi li ma ci yàq damaa bëgg nga toog bañu ma la mhm. ama loolu nga toog ba benn moment nga xam ni yow sa yaay bañu la lii la bëgg ci yow mhm. léegi nga gis moment bii nekk yow la sa yaay gën laa bëgg ba yow sax boo ko woowee ne ko yaay dama laa soxla booy wax ak moom téléphone da lay déglu guddi gi ñu toll attentivement par rapport ak période boo xam boo ne ko yaay du la nangoo déglu wala mu ne la man loo may may bu léewul duma ko jël xaw ma foo ko jëlee ama tamit nga dem ba sa yaay léegi loo ko may mu jël hmm. kontaan ci yow feer ci yow loolu dafa neex fu ma tëdd damay nelaw ba xandoor bu ma toogee ak samay morom sax sama yaay yëkkati téléphone woo ma ma kontaan am naa samay morom yoo xam ne tey seen yaay xamuñu ci luñ nekk hmm. ñoo ngi yëkkati seen xaalis di may seen seen yaay xamuñu nan lañ koy amee man tamit ma kontaan sama yaay chaque jour bu ma tëddee fii sama kër nelaw yow mu ne ma tey gisuma la hmm. foo nekk kër ga bu amee xew wala dara mu ne ma da nga nekk ak say nawle di nga xotti ma ne ko yaay man yëre olof ma solee benn yoon pere naa ci mu ne ma même boo dee sol benn yoon mhm. di nga xotti ma xam ne kii daf ma bëgg waaw daf ma bëgg tamit mhm. waaw d'accord ah, te man maay caatam moo tax caatam tey boo ñu doon wax ci moom naam yaa ngi gis ne des fois ah, da lay jox ñam wala des fois mu lay jox ngay sangook yu demee noonu nga gis sa yaay mbëggeel bi muy def ci yow loola lay def ci yow Ndickou waaw parce que dañ na ñun ñi dem nañ sax ba dañ naan dafa maa ragal mais fekk période boobu sama jikko moo ko neexut. Mhm. am rek ànd ak samay xarit topp ay àndandoo yooyu ma xam ne loolu neex ko mu topp mooy del mm. ñibbisi del toog ci kër gi mm-hmm. mais léegi dafa kontaan ci man ne ma boo bëggee am sama ngërëm ñibbisil nga toog sama wet li ma naan man sama yaay defar na ma en plus dañ naan TikTok am na ñu mu defar am na ñu yàq mais man TikTok daf maa defar bi ma demee ba siiw ba xam ne ñin ñaa ngi ma topp bëgg ma compte bi di gën a dem mm-hmm. laa xam ne man lu bëri ma mm-hmm. kon war naa reculer ndax am ñu ma bëgg balaa suba tey mm. ñu naan kii ngeen di topp lii wëg lii wala gis naa ko fee mais ne vaut mieux pourquoi pas man mënuma reculer am na ñu ma bëgg moo tax bu naan réseaux sociaux day yàq nit am na ci kaw nu mu lay yàqee fekk yow nga bëgg a yàq sa bopp mais man dafa ma defar dama dem ba xool ni ma bëgg léegi sax bu may dox ma bàyyi sama xel ne sama tànk war naa kaa teg fii wala sama tànk waruma ko teg fii am na ñu may topp ndax tey bu ma defoon di ñaaw xoolal ci TikTok kon tey yóbbu nañ ma vaar wala ñu ne xool leen locomotive ba mu nekkee fii mais TikTok dafa tax dafa tax ma bàyyi lu bëri man TikTok dafa maa defar. Mhm. daa aw ma ay millions de. Mhm. aw ma dara de mais maa ngi sant yàlla am naa ay nit. Mhm. am naa ay nit. nit ñoo xam ne chaque jour bu ma génnee rek ndikoo ngi nee ndikoo ngi nee ñii di jooy ndax man ñii di ma wooy fu nekk rek ma ne kon nii buñ ma gën a gore mm-hmm. barki yàlla daf ma defar nit woola ak ñi ñi xeli Sénégal yi di déggee maanaam ndiku wagala ak ndiku nit milieu la ak yu demee noonu nga jékki-jékki dégg appel ah, nit woola jooy loolu nan xëy dundee waaw loolu daf may dal loolu daf may dal nit woo ma jékki-jékki di jooy wala nit woo ma sama yaay. Mhm. ak tamit ay ñoo xam ni dara lañ ci dëkk bi barki borom daaru ñoo xam ni dañuy jékki-jékki woo ma ndi ko est ce que xam nga man mii di la may xaalis di la yónnee ay wéef est que man la kan man la yaay diw. ma ne te pourtant xoolal kii maa ngi naan ay liwam wala maa ngi lekk ay liwam ndekete diw mooy yaay diw. Mhm. li may wax saa su nekk rek. Mhm. li caat sekk di wax. nit milieu bul ko déggee ni comme tey yow ngay dem ay soirée nii rek nitu milieu nga. ngay dem ay concert rek ay làmb nitu milieu la wala ngay dem ay course moto yooyu nitu milieu nga c'est que terme bi langage bi lu ko ñin ñi. Mhm. foog ni kuy dem milieu rek jaay sa bopp moo la fa yóbbu loolu mhm. yóbbuwul la fa. ku nekk li la fa yóbbu. Mhm. gis nga tey di nga fekk nit mu toog ci pooju yaayam. nga takk ko may ko ay millions te sëy bi du yàgg. nga fekk tey ki nga xam ni ci milieu nga ko fekk. kooku parce que souffrir na daj na lu metti ci mbedd mi heure bu nekk dox na ko hmm. xam na li mu doon jànkonteel ci milieu bi yow nga jël ko ne ko pere nga pour sëy mu ne la waaw nga takku ko kooku moo gën a ñeme xonet kooku moo la gën a mën a sëyal parce que xam lan lay calculer suba kër gi nga ko dugal boo ko bàyyee suba fa muy retourne waat di dellu kooku day toog boo amee cent franc ngeen bokk nga am fukki dërëm ngeen bokk par rapport ak ki nga ñëw fekk ko mu toog ci pooju ndayam du ñëpp nag ñoo yam de nga xëpp ko ay millions may ko villa may ko kër suba sëy ba du barke wala du yàgg. Mhm. par rapport ak kee xam na lu koy xaar ci biti. Mhm. Mhm. Euh, d' accord euh, yaakaar naa loolu am na solo mais fu may gàttee sa sa yaay comme tey. fi nga toll maanaam sénégalais di la bàyyi xel yu demee noonu naam. ñuy toog di dégg ko mi nga expliqué ni euh, doomam nitu milieu la ak yu demee noonu toogut yu demee noonu loolu sa yaay retour yooyu noonu naka lay def ci moom. sama yaay duma la fen de retour yooyu deful ci moom dara. sama yaay retour yooyu deful ci moom dara parce que dafa sant. sama yaay bi ma daan dem dafa ma daan woo am ma koy daan bañ a jël. bu ma woowee téléphone ma coupé ko bu ma toogee ak samay xarit ne sama yaay ah mais bi ma demee ba ñibbisi ba toog hmm. dafa kontaan parce que doom ju nekk ñaan na yàlla di gis doomam dafa kontaan woo doo ko jël déggoo ma dama daan toog mu may woo du ma ko jël hmm. di xool appel bi nii mais bi ma demee ba toog ci wetam dafa kontaan chaque jour day xam ni maa ngi ci jàmm sama yaay TikTok sax xamu ko. Mhm. sama yaay day jékki-jékki nit ne ko waa mère Binta gisoo sa doom bi lu mu dugal wala nit woon ko vidéo bi. Mhm. mu topp ma ci affaire yooyu noonu ñu lay seen. Mhm. bàyyi loolu dindi loolu. xam li ma la génnal ci li nga nekk dindi lii luy loolu doo bàyyi foofu noonu ngay dugal photo. ñëpp dem na ko mère Binta kii loolu dem na ba dugg ci ba am ñu ko bëgg ba mu temps. a tut arrière yooyu mais TikTok sax xamu ko wax dëgg fa yàlla bu ko du gis xamul. lan moo tax nit ñi di ko yónnee vidéo. waaw pour wan ne ko xam nga nit ko ñuul bàyyi ñu kenn topp kaaw yooyu mais dem tey dem na tey ba nangu li ma doon. Mhm. nangu li ma doon xam ni ci li ma doon mooy loolu léegi mu nangul moo mhm. man léegi nii nii déggoo li ma la nii nii laa gën a firee. nii nii laa gën a kontaan am sama ñaanu yaay jur di tëdd di nelaw di yeewu heure ma sempee sama tànk fii hmm. xippi samay bët xool dellu di gën a sant yàlla xam ni hmm. yaay laa dese bëgg na ma fonk na ma mais tey am na sama morom yoo xam ni seen yaay yi duñ leen lijjanti xamuñu hmm. ci luñ doon ci luñ nekk seen mais man comme man man maa taxaw li ma ne man maa taxaw volontaire taxaw. Hmm. xam ma man kenn forcé ma ne ma ndikul lii wëg lii man maa taxaw réseaux sociaux. Hmm. ne man dama doon fréquenter milieu. Hmm. mais nekku pas pour jaay sam bopp loolu kan moo ko njëkk a def fii ci digg Sénégal taxaw ne man lii. parce que xam lan moo tax bëgg dafa foor wax ñi ma bëgg. balaa kenn ma kaa naan lii wëg lii. ne leen mais TikTok moo ma defar. maanaam nit milieu da ngay jaay sa bopp ci nit koo xamante ni xam na boppam loolu tamit yaakaar naa ni xaw am na lu muy def ci yow waaw man parfois dama daan toog. waa parce que ñu bari ñu ngi naan ko man damay dégg ay retour. Mm-hmm. Euh, def émission moo du waral lu nga xamante ni dama koy dégg dama la koy wax. Mm-hmm. ñu bari ñu ngi naan euh, da ngay suus euh, di di voler yu demee noonu ak di jaay sa bopp dañ koy dégg retour yaa ko wax léegi loolu lan lay def ci yow. ak lan ma la man damay live sax ñu bind ma ne ma dëmm laa. ah lu nekk ñu wax ma ko mais Sénégal fii sàqantuma ak yonent bi ñu sàq. am na baatu ginnaaw. kon ñun waruñu bañ baatu ginnaaw. Mm-hmm. man tey bu doon loolu may yëpp may dégg ñu may traité lu nekk. Mhm. ay pit ak lu nekk kon heure bi du ma egg fii. wala découragé naa naan posan mhm. naan asib tey am na ñu ma fi gën a siiw lu nekk lañ leen di waxal. Mhm. xoolal tey ay ñoom Viviane parfois ñu tam leen dëmb xoolal waal yi xoolal kenn kon Sénégal dañoo bàyyi kenn. mais Olof Ndiaye lan la wax. ku la séntu ci gaalu xaj ñu la ci mës a fekk. man tey bu ñu amoon ay preuve var kon nañ ma yóbbu chaque jour ma wax ko man mosuma tugg kaso. te pourtant ak a bëri fii balayeuse ay jigéen yoo xam ne ñoo ngi leen di defeere ñi di tëdd man li ma wax mhm. musuma tëdd kaso mhm. musuñu ma jàpp musuma fanaan violon police mhm. musuñu ma ramage ku ma mus a jàpp wala fekk ma ci naka sudul noonu jàpp ma ba ma dalee def émission dama koy wax na génn wax kenn musuma xam campagne pénal nu mel d'accord kon tey bu ma doon dund loolu amaana nit dina taxaw ni mus nañ ko fekk fii jàpp ko yóbbu ko hmm. wala mus nañ ko def lii wëg lii mais gàcce ngaa laa ma hmm. damay sant yàlla xaaral ma laal bant ñu ma jàpp musuma dugg lu sama yoon nekkul hmm. wala ma mus a dem tëddi campagne te pourtant ni may challengé di def yenn termes yi ñoo ngi may waxal lu nekk bandi la bandi la lu nekk ñoo ngi ma koy waxal mais maa ngi sant yàlla mais bu ma dee bandi hmm. wala may ñu may traité yenn border sama yaay gërëm na ma rek hmm. maa ngi sant yàlla te toroxuma am naa samay nit d'accord loolu am nit ñi ba ma egg fii rek non loolu dafa leer <laughs> yaakaar naa loolu am na solo mais ndiku weeru koor gi dama seetaan sa TikTok hmm. ngay ngay live yu demee noonu am ñi commentaire comme ni nga koy waxee ne ndikk du julleek yu demee noonu yan leer nga mën a andi ci loolu <laughs> ne ndikku moom du julli moom mooy loolu ndeysaan tiktok la ma benn oustaz monsieur woo mhm. sama yaay julliloo na ma ba ba ma bañ man duma la fen lépp sama yaay lu baax mhm. bëgg na ma def ko mais maa bañ ñi ñaan mbaam wéq na doom ji waaye bañ ko mhm. si weeru koor bi non ci tiktok la am benn gel tur laay fàtte Kër Massar la dëkk yónnee ma pot collagène ba jóge États-Unis boutique la yor tourné si jaada be jaada bi. Mhm. jëlal si jaada bi. non si bi il faut nga ko parce que dañuy dégg ci ay retours yoo xam. waaw déglu ma jënd jox ma si mhm. ak collagène. Mhm. ne ma ndi ko même boo mënul sax del këpp këppal. di julli. dëgg xam nga tey li ma lay wax ne la comme dama leen a bett comme ñu doon wax mënu ma togg. ak xaw ma nu may comporter ci biir nit ñi. ma ne leen bu leen seen mooy sol nu ma neexee ngeen dëkkal ma fu ma dëkkut mhm. ne leen chaque jour dee leen wax di yanu bàkkaar mhm. ne nit dafa lëndëm boo xamul nit rek bul ko gisee mhm. ndeysaan yaakaar naa loolu am na solo man bokk wax dëgg fa yàlla ni ma laa gisee ak ni ngay toogee di wax ni vraiment man wax dëgg fa yàlla gis naa nit ku yow koo xamante ne nit ku baax nga nit ku oyof nga naam tooguñu mais dawaar lu ñuy waxtaane euh, gis naa ci yow koo xamante ne ni euh, macha allah euh, donc fi nga xamante ni foofu la ñuy tëjee bëgg naa ñu waxtaan ci ñu bari na lañ da nga demoon armée waaw dama demoon armée bi ngay nekk xale ay ñaata at yu demee noonu non bi may dem armée 2010 con 2010 a demoon armée duggoon première contingent bis in la ñu formé ma 22 deuxième section hmm. ah bon baat douze. kon looloo tax ndigu xaaw mel ni góore daal. nga baal ma ci wax ji yeeg. yu demee moo tax parfois ñu naan ma del def yëfu góor da nga bëgg góor góorlu lii wëg lii. Mhm. ama foofu bu ñu la formé. formation bi kii ak dërëj yu métti yi tas sa yaram yi. Mhm. man loolu dox bi sax dafa des parfois damay dox man may dox pied gauche ay jiitalee bu may dox. Mhm. nit parfois daf may xool gis may dox ku service militaire ne ma. yoo da nga jaar armée mais la déedéet man du ma toog sax di ko baaxee ngeen ma yow. ak ni ngay doxee mooy loolu man nga sol ay trait yu demee noonu. waaw man loolu moo tax man tàmm doxe noonu quoi. xamali ma la léegi nag loolu moo des sama yaram dama féminin féminin naa de trop mais boo waxee dañ dafa xas a góor ak tàmm ay sol daal li loolu moo des si man quoi yére olof moo ko solee sax dem fi may dem ñëw sànni naa parce que ku nekk ak nga xam mais mooy loolu dañ lay dëkkal foo dëkkut quoi d'accord <laughs> mais bi ngay dem armée ndiku ban âge nga amoon non bi may dem armée jàpp moo xam nag ndax boobu maa ngi tewoon terrible Hmm. sama yaay jël sama BFEM na ma damay dem armée moo ko jàng nga ba am BFEM waaw BFEM laa demee armée abo ah bon laa demee armée ci laa demee armée mais mais mais ndiku man loolu jaaxal na ma ak ndiku mi ñuy gis ci image yeeg yu demee noonu jàng nga ba am BFEM laa demee armée am tamit sama diplôme restauration hôtellerie hmm. am sama diplôme d'état am samay attestation def ah sama formation centre CRETEF laa defee sama examen d'état mhm. centre CRETEF bi nekk Grand Yoff mhm. man am naa samay diplôme d'accord du ma naagunoo <laughs> kon essai booboo tax yéen yéen yéen wax yi nga mën ko nekk jaar restaurant Argentine université d'accord après nekk DP World Dubai mhm. Port ci resto bi man dama jàng oh, d'accord est-ce loolu moom moo tax comme fi nga ne jaar nga fa ak ci demee noonu moo tax yenn commentaires yi yi nga xamante ne dafa négatif nga xëy dëkku. waaw parce que damay déglu ne man parfois doo gis bu may live samay classe dañuy dugg samay promo classe boo xoolee samay live classe gëj nañ la gis. Hmm. étudiants yi parfois ñun la waa restaurant diw waa waa restaurant diw xam nga di présenté man la diw man la étudiant yaa ma doon tibbal argentin lii wëg li commencé di wax. Hmm. parfois loolu mënut a ñaax. commentaire yi mënut a ñaax ku nekk di wax mais yow yaay gëm sa bopp xam li nga doon. d'accord déggoo ma lan moo tax nga bàyyi armée non armée visite 90 jours yi dañoo demoon parcours du combattant ma yéegoon SLD raay bi ma yéegee SLD raay mhm. ma doon saigner amee trouble des règles mhm. bi ma amee trouble des règles ñu yóbbu ma infirmerie après bi ñu ma yóbbu infirmerie ñu yóbbu ma hôpital bi nekk Ndar mhm. bi ma yóbbee ñu xool saigner bi def écho ñu ne dama amee trouble des règles léegi ñu daal ne il faut ma arrêté formation bi ñu indi ma IASO. bi xoolee troupe de rek ci lañ gisaale dama amaale kiss. kiss d'accord kiss. Mm-hmm. kiss de l'ovaire gauche. Mm-hmm. ci lañ ma indee dakaar mm-hmm. ci lañ ma defee réforme temporaire pour ma ñëwaat bu ma fajoo. sam papa ne ma xoolal lu jigéene ndax boobu maa ngi ñëw mel ni góor ak sikaay fu nekk ak yooyu ak watu yeeg. sama tenue courte bi ma daan sol. <laughs> période boobu daal ba may soog a ñëw la vayde yi di soog a jeex. vayde ma ñëw toog ci kanamu écran pala ne vayde yi laay xaar ñun ñu ne ma yow foo ne xam formation bi. bu la jàppee da ngay naan absenté waaw da ngay absenté ma ñëw toog waa gàlle bi ñëpp di ma <laughs> romb. ne ma waaye looy xaar. <laughs> ma mais leen non vayde yi. ñu ne rek jàkkaarloo waaw ñu ne ma yow vayde yi jeex ba vayde yi ñëw Sénégal ma ne leen lu ma ci xam. <laughs> ñu ne ma yow Fayda yi jeex ba Fayda yi ñëw Sénégal nga toog naan Fayda yu Mara di jóg. Mhm. fay télé bi après sama papa ne ma xoolal lu féminine loo def. Mhm. ma ne la restauration laa bëgg a def ci lañ ma inscrire au niveau de IFH <laughs> école chef John ma jàng. def formation bi trois ans. Mhm. waaw nouveau CAP génne centre créatif def sama examen d'état. d' accord mhm. macha allah loolu yëpp fi nga jaar vraiment man moom <laughs> euh, euh, bett nga ma quoi bu dëgg neexee rek. bett nga ma te loolu kenn mësu ko xam kenn boo tax. <laughs> des am mbégte euh, bu fekkee dañuy def émission yu demee mhm. noonu ñu toog waxtaan maam mën nañu waxtaan say liggéey ak yu demee noonu. il faut ñu xam. lan moo mhm. nekk ci yow ñi ñi nga xamante ni xamuñu la di wax ak yu demee noonu. yaakaar naa amoon nañu mbégte loolu di la dalal Feeling Dakar naam. am na comme ni ko waxee ay presse yu bari yi nga xamante ni yaa ngi wax ñu lay seet seek yu demee noonu yaakaar naa jamono ji amoo jot tey bës mën nañu yow yaa ko <laughs> la ah yàlla moo ma jox yàlla moo ko jox suba da koy fokkati joxaat ko keneen rek incha allah ok yàlla na la jik aussi tamit amin amin waaye ñu bokk ñun ñëpp ñu bàyyi la nga tàggatoog mbokk internet Feeling Dakar TV doon seetaan ak ñi nga xamante ni à chaque fois boo génnee dañ lay bàyyi xel di la suivre waaw maa ngi nuyuwaat li may wax rek di dellu di nuyuwaat ñëpp di nuyu waa géejawaay di nuyu waa asegna bi may yeewu di nuyu ñëpp di nuyu tamit ñu tëdd ci lalu hôpital yi di nuyu ñu nekk ci prison yi waa jéelu mbuur camp pénal Koutal Forbe Cap Manuel Gossas jéel yëpp maa ngi leen di bëgg li ma booy yi di toppandoo di salaan salange mm-hmm. waa di nuyu Pape Cheva day jàpp ci combat bi day yëkkati sëba ne ma di ko ñëwal ba maasa zing jox ma sëba Oumou Lady bàyyi façon moom tamit day jàpp ci man make up yi meilleur yi nee naa ko make xale koy def maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu Bousse Bousse Ketchup sama mag ji moom mi ma booleeg Lat Diop Lat Diop jox ma xaalis bu bari waaw di gërëm waa géeja waaye yëpp yëpp di leen sant di nuyu Dabakara waaw di nuyu ñëpp di nuyu Cheikh sama doomu ndey sama lonko maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa ASECNA bi di leen sant di leen gërëm du nuyu waa jàmm gën tarkindaa yëpp sama papa Siteu wëcc yéen ñëpp maa ngi leen di bigee sa combat bi nga jëm yàlla nga am ci ndam bu sedd guy guy guy waaw. Mm-hmm. wasalaam ah, mi ngi noonu ah, jërë ngeen jëf suñu mbokk internet ah, Feeling Dakar TV nee naa la à chaque fois dañu am mbégte di ko dalal parce que nekk na nit koo xamante ni naam nga gis ko ci ay jëmmam boo nekkee nga xamante ni xamoo ko naam mën nga wax ci moom lu bareek ak lu demee noonu mais te yàlla def na ñu def émission gis ngeen nit lu mu doon ak li nga xamante ni wax na ko yëpp di ko ñaanal carrière am lépp li nga xamante ni bëgg na ko suñu borom defal ko ko ci barke Seydina Muhammad di jaajëfal Ali moo nekkoon ci caméra bi moo nekkoon ci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 Dakar, notre plateforme d'information.